Mungkin Mm. Wow, both parties has, has, has to perform immensely, has to contribute immensely. It should be vice versa. That's right. Yep. That's very true, yeah. So Lila Gwena, this is what I am. But I appreciate this show. Thank you. Thank you for appreciating the yeah, show. Thank you. Thank you so much. And we appreciate your call too and your contribution. Um, he said we should throw light on that, uh, and it's true. Um, like we said, men are always worked up, always, all the time stressed, sorry, tired um, from work. But that does not mean every day from work you have to come home stressed frown your face because you have a, you know, a long day at the office. No, we're not saying that. We all know that we have our moods here and there sometimes. But um, it's good that sometimes when you come to the house from work, if you want your wife to receive you, uh, you know, very well, sometimes it's good that you, you don't put up a frown face. At least smile a bit, put a smiling face, and then, you know, that way your wife will have the confidence to approach you more and then welcome you or even to, um, you know, give you food in a, such, a, such, such a nice way. But always been frowned. I'm not saying that all men do that, but basically maybe some men do that because they are always tired from the office, but you cannot be tired every day. And work is part of our day-to-day -day lives. We all know that. Sometimes jigen bi dafa liggéey, likewise go. bi comme ko kii waxee am na solo ñaari ñoo war a wanante uh, mbëggeel ñaari sites yëpp ñoo war a wanante cër ñoo war a joxante cër ñaari sites yëpp ñoo um, how to call it um, romantic. Wow, romantic. si ñaari sites yëpp la war hmm, nekk am na solo hmm. am na solo lool contributions if uh, it's it's getting late and late and late su fekkee ne am nañ more calls then you pick um,

ki mu ma maa ma traiter ni lutax lolu lu sama nek xaaral suma sayit understand nga ni say dafa hat so nice na trop pour net xam ne ki nga fa tek sa jabar la understand nga sa jabar bi tamit xamne ki dafa dafa dafa bright bright bride pride waaw ëppante xel lan tamit hello oops um betay xam nga ku nekk na jox morom cër bi mu ko war a jox wane ne ok yow nga nekk suma jabar doesn't mean ne ma nekk "Jaba doesn't mean it's a slave la understand nga dañ war a am at least jox ma right mamuna mun a express my view jox ma right ma mun laa defal lu ma bugga dem na wrong you rectify me loolu yëpp relationship la ok likewise jigen bi tamit bu be romantic too much too much ba dem feel ne ah kii for tooy no <laughs> no some women appreciate ne góor romantic toro because if you're romantic sa relationship that dee moish all the time daf dee moish daf dee sweet all the time. When you see your partner, it's like brand new. They're fresh all the time because your partner for xam your lan nga bëgga partner pare romantic romantic doesn't mean you have to go the world round and come back no you can be romantic in simple ways like what we said if your wife put on something good you look good I love your dress. Mm -hmm. So wife said, Mrs. Salon be make up a good hair. Why do you think your wife is fixing up her hair? Obviously, the number one reason is okay I want to look good basically for my man mm-hmm. understand nga bëgg naa look good pour suma góor uh, but okay di look good pour ñeneen ñi si biti but bëgg look good for my man and this man of yours you went all the way to do something to look good to look different he doesn't say anything No, wax dara nga kangu fom kangu rek mm-hmm. nekka saytam a ah, nga foog loolu tamit léegi léegi diis la de neka. moo tax ñu ne suñ ne diis si góor si jigéen jigéen warut wante tamit góor foog naa dafa war a oyof bul oyof nag mun ngaa oyof comme ni ko gars yi di waxee mun ngaa oyof mel ni mbaxana waaye tamit mun ngaa sukka ñu ne sukka du la tere yóbbu sa uum mhm. jigéen noo ko pompee rek mu nekk sa bos waaye boo jëlee sa jigéen daf ko naka su dul noonu doo ko apprécier oh, jigéen danga ko war di wan every time ne ko you you you you're regular. Wow, you are sweet. Wow. You are beautiful. Exactly. You are this. You are that. These little comments is all about romantic. The They of they play a vital role in a relationship When you marry, then could the oversight. When go solo sa, unyo mm-hmm. reng muras kana mami. Dilo ko nag si ko ba si suf. Ras ko de. Wow. Hanggang lo tamit. Wow. Am nag tamit ko hamne. <laughs> am na am na tamit koo xam ne kool eh, na fi eh, bu yaagut moom mu ne eh, jigéen ñi léegi-léegi nuñ dee mel seen kër yi <coughs> dangay waaru comme ne suñu kooku dafa ma text ne Jigeni they always look good when they are going out they don't look good if they are sitting at home okay depending on the type of Jigen, maybe okay Jigen, at home we all know that you have to be simple you don't expect anybody to wear makeup toog kër it's obvious doo uh, weexa sa makeup nga ne yaa ngi sa kër but we all know na jigéen war na di sangu ba set war nga sol sa lu xeeñ lu ne lu mhm. oyof oh, understand sa jëkkër xam na yow ñaari boor am mhm. okay if you're going out my woman is like this if she's at the home she's like this waxuñ leen nag nga you know bàyyi sa néeg mu Doko clean Doko ko def cuuraay you know Doko ko bale loolu yëpp si jàngee ak si feem la boo ko understand nga dañ ah? passé si débat si lifin bu bu noonu dañ passé si jamono bu bu sangu ba set solu dafalu ba mbaax understand nga doon nécessaire miin ne da nga war a meko bu war a nga war a soo sa mbuba yu rëy yooyu o sa mbubay génnaay mbubi am mbubi kër it's soo góori tamit buñ ko soo demee ñëw sa wax ñëw yére oye fii soo toogee si kër gi mm-hmm. sanse ba mbaax sanse ba mbaax loolu yëpp si ay feem la boo ko xëy ne sangu ba set te nga make sure ah, naka la lii yow laa ko solal jeex na ah bég naa de. ok ndax du déggoo ma de. mbaadu yëpp si ku nekk comme ni waxee rek jigéen bu nekk ak ay style am. waaye léegi-léegi nag jonge nit ki daf dee nëbbu nëbbu in a sense ne dina nëbbu dina dem a dem ba nëbbu si jigéen bi jigéen dafaa dem ba ne waaw. man I used to be romantic before lu tax léegi romantique wu ma si suma góor gi mhm. waaye because xëj na góor gi always dafa dee stress or always seen problems yaa dee overcome seen happy times yi so obviously problems yi su overcome seen happy times yi yow da nga dem bi feel na you are not romantic but you are very romantic xëy na góor bi tamit dafa romantic bu baax a baax a baax waaye du ko mun a génne du ko mun a fesal because lan problems yi ñoo dee ñoo overcome seen um, um, seen sweet moments yi seen seen leisure times yi ba pare relationships ñu xam nañ ne dafa critical exactly relationships yëpp ñoo compliqué. kenn waxul la ne suma relationship am na jigéen yoo xam ne tamit dañu leen ba seen seen jëkkër yi commencé di ruus. am kersa nga am kersa am na jigéen yoo xam ne dañu am kersa. Hmm. am na ñoo xam ne noonu la leen yàlla bindi dañu am kersa moom. waaw léegi si jam si jigéen euh, situation boobu jigéen bu am kersa. Euh, nan lan la war a def ba génn si kersaam boobu góor baa ko war a ñëw dimbale wala moom dafa war a génn si si si cage boobu noonu. waaw moom fu mo ci gor bi diko xam nga xam nu mo demee mo su dee gor bo xam la tamit. Mhm. dafa moko ko mhm. moko war di ko di set diko won woon naka la ak yoy nonu su mhm. boba aftaru sangé bi dafa génn. dina génn lastaan. ok ko dafa melni am nañ la ah, hello. hello. hello. hello. yes hello. ma nga def. ma nga def. jaama rek naka nga def. dama bëgg a contribuer ci programme bi ci waaw ñu ngi déglu. waaw man daal si ma suggestion foog naa ne góor boo xam ne da nga takka sa jabar nga yóbbu ko si kër gi. Hmm. kooku nag war na laa bégal man romantique bi ngeen a wax war na laa romantique daal always soo wàccee liggéey yi war naa solo ko comme nu solee di génn di dem si programme da ko war a def nga di toog di ko xool xëy naa ne sa xol bi dina bég si loolu. bon nga jënd sa yére jabar nga jox ko du ko sol ba suy demee programme. ci hmm. la ma koo sol bo su nekkee ci néeg bi du ko sol kon yow gor bi eh, naka ngay remonté ci ak mom mel ni ñene ni ñoko ko ci si ñoko ko rafet na foog na ni si néeg bi la ko wuñu da wara staté yow nga ne ko da nga rafet ni gin mu tok mu ñu man la ataya sax mu sol sol yoy noonu taxol bi dina deg degala ok ndax du dégg degala ku nekk sa contribution degala mo ma ni ne lo muñti munti def si biti ni sax da nga dem ci salon defal sa boppa nga mur ko be so agsi sa bir ni nga woné ko sa jëkkër ka xolam bi dina dégg si loolu romantique boobu noonu dina mën a dem. kon nga wàcc a liggéey fekk sa jabar si kër gi mu commencé mu ne moom dafa ñëw bale di ñuy naan am ah, pour yow wala soo war ngaa sol yeneen solo nga toog sa jëkkër mu gis la mu bëgg foog naa loolu wees normal. <laughs> dëgg la dëgg la la. jigéen kañ koy def loolu. ah comme ma ne keneen dina ko mun a jël sa loxo romantique bi nga wa mun nga koo am ba rawul lu rawul romantique sax. <laughs> dëgg la xam naa suma mbokk jigéen yu dinañ jànga si sa dinañ jàngee si boobu mm. contribution boobu ah, wax na lu am solo eh, xar ba sa jàngal sa ñun xaar ba sa jëkkër waaw dinañu jàngal sa ñun waaw ñun ñëppay jànga ah, dañoo seewante ideas kenn ñu ne benn xel eh, mutut te kenn gënut a xam ñëpp eh,